ah ñu bëgg ci ñaanal itam te danañ ci waxataan ak moom yenn position yi nga xam ni eh, ñenn nit ñi amoon nañ ko di convoke yenn enseignants yi eh, sama baay dafa am sebu buy tàkk kenn du ca ji gerte hmm. kon du sax fu ñuy wute jàmm kenn du fa créer problème bu fekkee dañ leen waxoon nañu convoquer les enseignants wala nañ leen def loo di nañ leen def loola mais loolu commencé nañu waxante guñu fu muy teer loole ñooñu ñu ko jox moo xam ay policier ay police la moo xam gendarmerie la nañu arrêté yooyu waaw nañu ko arrêté ba waxtaan wi sës ndax sësagul waaye itam ci sës fu baax rek lay jëm incha allah su ko defee kon nag ñoom ñu bàyyi loolu te loolu danañ ci ñaan président mu ñaan eh, ñi nga xam ñoom la teg loolu ci seen loxo ñu arrêté ñooñu les enseignants eh, di leen jéem a xoqutal loolu waaw ah, loolu àgguñ ci te yàlla buñ ci àgg su ko defee kon nag ñooñu itam ñu ngi leen ñaan bu ñuy defar ñoom itam nañ bokk ci defar bi waaye ñuy defar ñuy yàq kooku gënul waaw kooku gënul